RFM Matin. RFM Matin. émission Billet au Sénégal. RFM Matin 7h40 sunu gan salam euh, Mbodj Malikum salam salaam Babacar. yow yaay secrétaire général ci wàllu njàng euh, yaay secrétaire général syndicat jàngalekat bi ñuy wax euh, CUSEMS authentique waaye itam mbokk nga ci ñi jiite mbootaay gu bees gu ñu sanc tuddee ko coalition citoyenne le le peuple nga fës lool fan yi ci coowal Adji Sarr Ousmane Sonko. laaj bi kay sax mooy yow lu la ca lu ma ca mooy nekk sénégalais euh, bokk ci réew mi lépp lu am ci réew mi soxal ma euh, ma nekk koo xam ni dama gëm ni lépp lu am damay xool rek sama aqulaay taala euh, gannaaw bi ma ko jàngatee déglu acteurs yi gis mbir mi ni muy demee ma xool ni quand même mbir mi daal bëri na lu ci lënt ah loolu nag moo tax ma bañ a seetaan parce que olof yi dañ ni Euh, seetaan ci sot la bokk cest à lu mu mën a am da ngay ñëw àtte boo mën boo mën la àtte nga wax li nga ci xalaat wax sa aqulaay taala ci loolu lañ nekk rek nekkuñ ci leen parce que comme ni ma koy leeral toujours man bokkuma Pastef mus <coughs> euh, musuma euh, woowante téléphone ak Ousmane Sonko sénégalais laa boo xam ne damaa nekk ci réew mi di gis nag ni muy doxee. kon nag loolu loolu nag moom dina naqaree gëm naan déggante woo ak Sonko bokkoo Pastef kon lu tax nga euh, diis ca noonu te yéen woo. waa déggoo li ma la woo xam nga ñun danoo jàpp ni. Euh, réew lu koy yàq mooy nit ñi jàpp ni lépp lu la concerné wul directement rek sa yoon nekku ci. loolu bu ñu ko doxalee rek musiba dina am ci réew mi maanaam tey jii bu ñu gisee sunu mbokk moo xam ne ci réew mi la ne ak boor bu mën a féete ñu koy jaay doole ñu ne ñun day yegg seegun ci ñun kon ñun suñu yoon nekku ci. loolu nag ñi nga yow njàngale mi rek daw dooy na sas waa moom laa lay wax la nga ca bëgg yëpp amam ko ko ca revendication yaa ngi fi jàngalekat yaa ngi lay déglu fal la nga toppatoo seen syndicat xeex booba ngeen di xeex ak gouvernement bi ci li ngeen bëgg ci ay revendication soo teegut ngay ngay sóobu ci leneen ak yeneen déggoo li ma la wax Babacar ñi vaccin yi sax samp nga benn kuréel naan bu fi vaccin yi dugg euh, boo ma mayee rek Babacar mu leer parce que yi nga li nga lim day bari soo ma dee tuuti rek mu leer euh, man moom

maanaam parce que ci régime dictature lañ nekk jaay doole comme régime jaay doole lañ nekk loolu ngay wax bis bu ñu ko jàppee ñun jàngalekat yi ak ñeneen ñi nekk ci secteur santé ak ñi nekk ci justice ak beneen boor ñu jàpp ne ñun bu ñuy faagaagal keneen suñu yoon nekku ci bu ñu ko jàppee rek ñoo ngi nax suñu bopp bu ñu paree dañuy jël kenn par kenn di ñu éliminer te loolu bu ëllëgee nit ñi daan ñu yéen lu tax boole woon suñu doole au contraire aujourd'hui j'appelle tout le monde mm-hmm. à la responsabilité pour que kuréel yëpp ñu dajaloo bañ seetaan jaay doole bi am ci réew mi. parce que ci sunu kaw la jëm bu pare. mais boo waxee faagaagal est-ce que atte woo déjà te sànq wax nga waxi atte est-ce que duñ ko bàyyee ki ko war a def. xam nga sénégalais yi il faut ñu bàyyi laayam laayam ci xam nga luy laayam laayam maanaam aujourd'hui mënuñoo nekk ci réew mi ñu gis justice boo xam ñoom ñi ko ŋànk nee nañ ñoom amuñu indépendance ñoo ko waxal seen bopp ba boole ko ci seen plateforme ñoom l'union des magistrats du Sénégal wax ni. danoo bëgg ñu may leen seen indépendance kon loolu mu nit ñi mënuñu koo tegee nee naan nañ bàyyi justice mu def liggéey may ma rek may ma rek non mais indépendance xam nga du leer oui mais da nga ñëw may laaj da aussi loolu rek laa bëgg man léegi li ma li ma la bëgg a laaj moo di mhm. euh, indépendance boobee ci ci xelu nit ki la nekk nit moo mën a mu amal boppam indépendance bu ñuy wax waxi indépendance surtout parquet bi lañ koy jëmale waaye ab juge até Georges président de la république Macky Sall moo contrôler justice bi limu wax 31 décembre lu leer nañ la dafa tok Sénégal yépp diko ko déglu mu man buma ministre euh, de la justice garde des sceaux ak procureur bi joxé yenn dossier yi man maa naan ko bi teg leen ko ci souf parce que bu ngeen agalé li ba téyé ko fi réew mi réew mi mën a am jafe-jafe du lool moo wax Sénégal yépp dégg du samay wax <laughs> wa lool kay leer na wax dëgg yalla xam ñun Sénégal lu ñu yaq dañuy gis dëgg gi muni ni ku ne di ko wër-wëral di raay raay raayal loolu président bi wax leerul. nga foog ne loolu yëfu Sénégal képp non attends waxuma la Sénégal képp dama ni. loolu lu leer naññ la que justice mi ngi ci loxom que ku ko neex ñu topp parce que procureur mooy toppaate wala waaye ku muy topp da koy yëgal moo ko wax la ko ci ministre de la justice parce que ñoom ñaar ñëpp mooy seen kilifa effectivement Georges juge yi ñooy àtte mais le parquet dañuy dépendre directement du chef de l'État fi mu kenn politicien vrai vrai parce que man société civile pourquoi ci xam luy syndicat syndicat les premiers acteurs de la société civile parce que ñom différents secteurs yi vous non non non non non non non non, non, non, non, non, non, moy ab nit ku créer ben société ben association tudde ko nu ko neex rek lolou société civile au contraire toutes les marches démocratiques yi am ci Sénégal dox djégo yi Sénégal def yépp jàngalekat yi dañuy ni ci biir ci ko xam lan moy taarixu Sénégal kon ñun réew mi ni muy doxé danoo intéressé parce que buñu sétané ba réew mi yàqu suñu revendication yi ñu am nga xam ñu ngi ñuy jaay doole ci bor bu mën doon buñu ñu ñun mën ñoo tok ci suñu salle de classe di xool réew mi mi yàqu ba noppi ñu yaakaar ne bu ñu paree ba yàq réew ba pare wala jaay doole bi ñuy def ñu jaay doole bu ëllëgee bu ñu taxawee di kaas suñuy droit dañ naan nu jàll leen fële. ca àll da nga positionné wu rek pour nekkee président def la dara loolu rek. non loolu xam nga ñàkk xam dàmbuj la. loolu moom tontu baa nga ca kanam yàlla na ko yàlla. yow yaay Youssou Touré non may ma rek yaay Youssou Touré Sonko. bokkuñ bokkuñu mm-hmm. xoolal bokkuñu moom dayo bokkuñu bokkuñu juddu bokkuñu éducation bokkuñu gis-gis bokkuñu ay valeurs. te nga bañ dugg ci. non dama ci lu leer. ci lu bokkuñu dara ma moom dara donc kooku ku may méngale ak moom dangaa xamul man nekkuma ci par parparloo nekkuma ci ay calcul te gis nga yal na ko bu fekkente ne Ousmane Sonko moo gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla dénk réew mi ñu xool man sama taxawaay ñoom sénégalais yi parce que léegi lu fi nit ñi wax comme nañ ko wax lu fi nit mën a wax dañ lay vaar lii dinañ ko capté vaar ko justement waaw nañ ko vaar mais lu tax nga lu tax nga ni lu tax nga ci mbir mi coow li nga féete ci Sonko bañ a faral Adji Sarr lutax lutax lutax lu tax sa péete ci ci ci wàllu woowu. waaw euh, xanaa aji sar mom du sénégalaise. Euh, Babacar. xanaa amul ay droit. lutax nga fété feulé Babacar soo ma dégloo rek mu leer xam man sa question leer na jërëtul gëna yaatal. leer na naañ da nga laaj rek lutax tax man ma ak Sonko damay dama lay léral Babacar que man féetewu ma ak Sonko damaa féeteeg deug c'est important xam tam mo fété féeteeg dëgg Ousmane Sonko citoyen la comme citoyen yépp ñu gis ni kiko ko lu mës a am viol fi Sénégal ki tuumaale viol ñëpp dañ koy gis mu taxaw ni kii moom a tuumaal viol ki ko tuumaal ñëpp gis ni complot bu leer naññ moo nekk ci ginnaaw ci képp koo xam ne nekkoo di raay raayal. désolé mais dama waxoo fi ba ma dégloo rek. ba ma Babacar ba ma dégloo rek xam nga sekkante ni comme vingt minutes bëriwul ba ma sañoon rek boo posé question bàyyi ma tontu parce que man li may wax lu ma xam la te lu ma ñeme la. donc li ma bëgg a wax mooy complot bu leer naññ nekk ci dossier bi parce que kenn mënta comprendre ki nga xam ne moo tuumalaate bi mu demee ca euh, enquête gendarmerie muy enquête préliminaire bi ànd kook ña xam ñoom la siqal euh, mbir mi toog ca kër ga fekke ko muy kër goo xam ni ku fa ni eh sax ñu dégg la ñam ko bokkal ñëpp déclaration yéen def ci gendarmerie bi ni dégguñu lenn luy nuroog viol moom ci boppam kam àndandoor di maase euh, Ousmane Sonko moom joom ne moom mii proposé na ma sax ci bi ñuy enquête ci gendarmerie que man na ma jox cent mille francs ma génn ci mbir mi nan lañ lay violé ngay jël sa cent mille francs joxe beneen bi mooy ñi nga xam ci ginnaaw lu tax enquête bi jëmul ci ñoom pour ñu wax avocat boobu nekk ci ginnaaw ak kooku nga xam ne moom mooy. waaye yow léegi gendarme may ma rek may ma rek may ma rek ma ñëw non Babacar xam nga boo ma déglu tamit xam nga ni ñuy déglu. non Georges tam dafa war a laaj foog ngay tënk da nga war a tënk tam. non damay tënk dafa leer mais c'est-à-dire que il faut ñu déglu ma bu ma laajee question dama ni xam nga liy dëgg. mooy ñi nga xam ñoo ñu seen ginnaaw dañ leen a cité dans l' enquête préliminaire dañ leen a dañ leen a cité tuumaal leen ne ñoom dañoo laala ci mbir mi mais lutax kenn du jëm ci bor du ngi responsable yoon seen téléphone lañ diglu ak mais luy té ñu laaj opérateur de téléphone yi nga ñom ñoo jaay ay puce ñu ci cité muy avocat bi wala avocate bi mhm. wala médecin bi wala nga xam Sidi la nga xam doon jëli bi et puis fan lañ mais mais dama ni fan lañ ko extrait de communication y'en def ni ñuy def bay jappay responsable politique actuellement Sénégal suñu waxé deug moy suñu déglu won Sidi Mohamed Mbaye téléphone waxal ndank yaa ngi yuuxu waxal ndank lam mu waxante moom hmm. ak lam mu waxante moom ak Adji Sarr la ñu waxante ñoom seen biir ak médecin ba ak avocat ba suñ ko déglu won lépp lèr mais munoo bëgg yëf yi lèr té li tax mu lèr doo ci wax loo ci xam newoo fa non non Babacar dama la yow defoo defaanoo enquêto enquêtaanoo Babacar Babacar bu suba na yow nga dugg ci lo xam ni yow sa yoon nekku ci te da nga ciy dugg ni réej gis nga fii Sénégal buñ dugg ci débat boobu xamul tax ku ci nekk da ngay wax li nga xalaat ci li nga xam moom la dëkk bi doxe man leenaa la kenn du ma teel xamal wax de balaa gendarmerie di la topp di si dama ne la man ragaluma ku ma jël si parce que réew mi moom kun mhm. fi jël si xam réew mi kun fi jël war ngaa sant yàlla parce que réew la moo xam sax ku dem naa ne ndox sax ñëw ñu bëgg laa téye gis nga man kenn du ma xoqatal parce que ma ci askan wu ñuy xoxatal man Dame ni nii dans ma ligne ni dans mon éducation man kenn du ma xoxatal. yéen rafet ngeen. manam affaire walo dal ni enquête bi doxé deg nañ euh, ñi nga xamantene ne ñu ngi saluer euh, professionnalisme section recherche gendarmerie. lu tax ñu gaaw nang ko ci euh sama laaj mhm. bo len rafet lo wala ñoñu buñu rafet Lo. Euh, professionnel bu gendarmerie ci bir enquête wi. Mhm. est-ce que ñoo bàyyi mbir ma wey le plaire waaw mais Babacar à ce euh, astafurlah euh, di Georges Déthié mais luy tee enquête bobu, nga xam sénégalais yëpp rafetlu nañ ko nga xam ne wax dëgg yalla section de recherche comme niñ ko waxé mhm. corps d'élite lañ ñoom euh, gendarmerie d'abord mais surtout section de recherche quand même ñi ngi def liggéey bu mucc ayib mais ñom lutax ñu patam patamee enquête bi nangu ko ci ñom pour djébal coup mais est-ce que leer na la nangu la may ma rek waan mais. yaa ngi togn ya ngi togn mais loolu mo am loolu la sénégalais yëpp constaté mais personne ne comprend pourquoi nous, patam mais mais buñ mënul déglu oui mais aussi dañ lay mais de hmm. y a des rumeurs même yow sa émission déglu na la de Mbodj c'est la vérité. mais il y a des rumeurs que le commandant parce que enquête bi enquête lu kenn lu dul warante li may wax ni sénégalais yëpp yi may dégg xam nañ li may wax lu leer naañ la gis nga enquête bi. maanaa da enquête bi daa setal Sonko. da koo setal setal bu leer parce que ñëpp ñu nu déglu. muy même Adji Sarr ci ni mu wax waxee sax ci ku xam euh, euh, ku mën a def analyse discursive dangay gis ne dafa leer nañ li may wax waxi. yow pour yow enquête bi dafa leeral ne viol ah. amul dafa leeral ni seq amul. mais enquête bi xam nga li koy daaneel mooy. li gën a simple la mooy pour yàq am. fokk nga yegg ci ndaw si. léegi nag ndaw si ci boppam biñ ne dan maa yàq loolu lu ca leer mais dama la non yàqtaan laaw Babacar li may wax nit ñi ñuy dégg dama ni pour nit wax ni yàqtaan nañ ma fokk ñu yegg ci moom te ndaw si bi mu demee dem ci médecin yegg gi wóoru la waaw may ma Babacar da nga may may ma daaneel yaa may dégg Babacar man xam nga euh, li may wax lu ma leer la te lu may assumer la kon may ma rek ma daaneel dama ni moom xale bu jigéen bi bii xam ne dañ koo yàqtaan ba mu ba mu fa jógee daa am ñu ñëw jàppale ko ñu ne dañuy dem seeti ab médecin ba mu demee lu médecin bind ci rapport médical bi que xale bu jigéen bi ñàkk na ndawam bu yàgg yàgg yàgg ñaareel bi mooy xale bu jigéen bii mooy consulter toog na lu mat be be euh, ñaar fukki waxtu ak ñeent yoo xam ne sëyul waaw loolu leeru ku ñu taan léegi léegi kay bi ñu la seetee. war nañoo gis lu sëy nga léegi lu tax. mu. lutax euh, ñu bëgg a mbir mi ci test ADN. bi ñu prélèvement non xam nga test ADN. dama parce que aussi médecin bi il faut nga wax lepp li nek ci biir. dossier médical bi. Oh, George bo ma bay rek ma leeral la gis nga test ADN dégg na avocat bu koy jéem layal mané mais mom euh, test ADN da xamul rek waye wax dëgg yalla test ADN ça n'a rien à voir avec le le le vieux ça euh, parce que tay jii il faut nit ñi bañ a ruube te bañ a moi je ne fais pas le jugement légui yow nga jangal kan nga gendarme nga docteur nga médecin légiste nga babacar neena la man lolou rom na xam tax man duma xana yow yaay kun rek rek xolal fi kenn du fi kun fa yow bus bu ne nga dugg ci ay sujet yo xamni jango ko fenn amo ci ben experience lañ ci wax la nga xalat may may ma rek ma ñew man kenn duma terroriser man dambo ci kuma xam bien sûr maintenant lima bëgg leral fofu moy bu sénégalais yi roubé ñaari mbir yi bokkuñu même Ousmane Sonko eggon ci ndaw si ci contexte bi nga xam ni lépp liir nañ PV yi nga xam moom moo jógee ci enquête préliminaire yi buñ ca déggoo ñoom ñaar xale bi am lu mat ñaar fukki at ak benn Ousmane Sonko nekk mag ñoom ñaar buñ ko seqoon yoonu kenn nekku ca xam yoonu kana ca nekk mooy ay soxnaam yàlla subhaanahu wa taala mi ko sàkk ak ñi nga xam ñoo koy mere bañ koo voté la ti ñooñu ñooñu ñoo am la intéressé man intéressé wu ma intéressé wul procureur intéressé keneen il faut que les sénégalais bàyyi ruube ak jaxase maintenant nag yaa ngi lewal seq gi bu ñëwee bu ñëwee nag bu ñëwee maintenant nag ci viol bi amul benn bu ñu mën a teg gis nga fintoon ni sénégalais yi koo ci wax mu ne la viol moom waxi viol nañ ko tege ci suuf parce que kenn du ko fi gëm ñoom sax xam nañu gëmuñ ne viol am na donc maintenant nag parce que waroon na faa dem waru faa dem ay non nañ def test ADN test ADN test ADN lan lay prouver que violé nañ xale bi buñ ne moon sax. dañu yow loo xam ci test ADN. dama ne la test ñu xool ndax moom peut-être li ñuy wax ne am nañ ko ci moom ndax méngoo na ak jëmmam pour ñu xool ndax moom loolu ci moom la jógee mais bu ca jógee lan lay prouver est-ce que day prouver que dafa violé il faut que les gens soient sérieux ñun débat boobu duñ ci dugg xam lu ñu intéressé mooy teesu viol lañ ko jiiñ te amul dara luñ teg ci loxoy nit ñi pour woné ni viol amna mais mais mais certificat médical bi rapport médical bi nga xamné mom ngay convoqué bay naan sax ay 20h wala ñaata heure ah. seq amut. rapport médical bi waxul lolu mhm. nee na amuñu wala bok nemmeekuñ ay lésions wala ay déchirures lolu lañ wax. Mhm. déchirure lésion bokkul ak seq ak baña a seq. dama ne dama ne Georges. Georges ci terme ñu utilisé. Georges Georges gis nga xale bu jigéen bi ci bopam yaa may dégg. lim boo boo boo boo boo xooloon liiree euh, rapport bi nga xam rapport médical bi moo am lépp da ngay gis ni. rapport bi ci boppam laa ko xale bu jigéen bi. dafa yaakaaroon ni peut-être moom sax damay wax ne ñi nekk ci ginnaawam sax jaar na seen kaw parce que moom nag bañ ma nee man nee na euh, patron nee na euh, moom du nit kuy wax dëgg laa ni kooku moom bay ba ñu pare ci ay mbiram parce nit koo xam dañ ne lépp lu mu la wax lu ci ëpp du dëgg kooku moom ay waxam nañ ko tege ne xaw man lu ma jàpp. nañ bàyyi damay ragal nga layoog nga layoog Adji Sarr dama ne la man du ma layoog ah. kenn xamal ma Adji Sarr mosuma yaa ngi koy sas rek mais mosuma gis nit ku ni violé muy muy muy préparé violam naan dellu ci dem ci borom këru ki moom salon bi naan ko waa yéen sonk kañ lay ñëw def ko ñaari fan niw naan ko waa Sonko du yéen ko woom wax kañ lay ñëw mais loolu gis nga Babacar waxee wuñ ko nii bàyyi mais noonu la deme bul yokk noonu la ko mm. waxee dani moo fi ñëw ñaari yoon dama laaj Sonko kañ lay ñëw mooy nit koo xam ni da naan man damaa war a waajal nit ki nga xam nee na violé na ma violé waat ma violé waat ma ba ñëwaat ci ñeenteelu viol bi moo tax mënatuma koo muñ te bu may violé day yore ñaari arme il faut que les sénégalais gis nga wax bu def bu dafee yow mi koy déglu ak say nopp nga nekk nit gis nga aji saar bum ñu yàpp na réglé ñu nekk ci gànnaaw bu ñu bu ñu bu ñu jaxase sunum réew yëfu salte yi comme ni ko président de la république waxee bam mu ca paree lam ca warona tek teg te ñëpp doon ko xaar néna mom moom yëfi salté yi complot yi di ci bok kon nag man japp naa ne comme mom néna na dossier moy wax procureur ak ministre de la waxul salte dañuy yu suufee yi du ma ko def mais yu salté rek moy yu salté parce que seen àdduna bi yëpp ngi ngi ngi ngi ngi gis ngi ngi wax ci kawti kawté Sénégal ci ñak fayda yi au moment où nous avons des priorités ailleurs au moment où il y a d'autres enjeux c'est c'est dommage pour mon pour mon pays c'est-à-dire que li xew ci réew mi président de la république comme ni mu ko waxee ci yenn dossiers yi moo naan teg leen ci suuf ba mu waxee loolu ba pare xam lu mu ca waroon teg teg leen ci suuf parce que moo ne am na dossiers yoo xam te moom bu ko neexee. moom teg leen yow daal ah

que yow euh, pour certains noo war a woon a àgg fii euh, El Hadj Diouf ma répondre ça n'a rien à ak ñëw man defuma loo li ngay wax noonu parce que El Hadj Diouf c'est un citoyen sénégalais mais mënta nekk fii di yàq deru jàmbur te moom kenn du ko tudd boo yoree lu ne weng loo xam ne yow lañ la ci te lañ la ci du luñ la jiiñ yow waroo nekk di wër di yàq doomu jàmbur joo xam ne amoo benn élément de preuve boo teg ci loxo nit ñi parce que encore une fois ce dossier là est un dossier vide qui doit être classé sans suite loolu mooy dëgg keneen ku wax leneen la neex sa affaire la mais ñun li ñu jàpp mooy jaay doole bu metti la ak ragal ab candidat boo xam ne yaakaar nga ni boo ko faagaagal alaaj juufa la mën de alaaj juufa la mën de mais loolu ci la nga yaakaar rek da ngaa desee xam dàmbuñ bu bu fekkente ne. man nekkuma sax non ki yow barki démb nga alaaj juf nag moom yàgg na. dama ne la loolu ci dara gis nga Sénégal xam nga ñuy jaawale. at yu bari ak ak vécu gis nga man dama la bëgg a xamal la man dàmbooj du ma ku ñuy écrasé ba mu ñëwee ci débat bi la mu bëggoon mooy ñëw dox ci kaw dàmbooj comme ni mu ko defee ci beneen télé dàmbooj nag du n'importe qui lool pour mu leer nañ bu ko te loolu li koy firndeel. mais daam kii non man man may dàmbooj yaa may dégg. di doomu Abdou Jëmbooj ak mu fay gëm boppam dëkk ngumba ngeewul ñu am jaar-jaar jaar université def fa ay jaloore nekk ci njàng meeg njàngale mi di respecter samay droit ak droit jàngale yaa ngi xeex yaa ngi convoqué vécu mais non non vécu ko teg yaa ko teg dama ne la dama ne la dama ne la dadul loolu c'est-à-dire que dama wax ne la man nekkuma fii di def comme yenn sénégalais yi di ruubee xam nga la mooy dëgg sénégalais yi dañuy gis dëgg war cee teg baaraam mais damay man des fois damay gis Sénégal actuellement damay gis dans la presse ay titres yo xam dama naan mais ni li ñuy wax ak li ci li ci terrain bi ça y a aucun rapport il ne faut pas c'est un complot ourdi par un gouvernement bo xam si ils ont peur d'un candidat man Dame Mbodj damay wax li ma gëm et aujourd'hui peuple bi ñoo mëna arrêter ces dérives dictatoriales yi ñu am ci réew mi parce que président Macky Sall dictateur la il faut sénégalais yi laxasaayu taxaw jamar la moom de façon pacifique mais won ko ne ko jaay doole bi muy def ni ëpp na